tuubaa ngi woote bésum màggal ga waaju ko man na waaj ñëw ndax sëriñ tuubaa ko xer la ci gan góor ak jigéen mag ak ci ndaw ñépp nag lan woo màggal si leen asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu mbokk yi jàkkaarlu ñun ci dañu seetaan ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi wa salaam santaat bu baax sunu yaakaar teeg ëllëg di ku tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul di nuyu ñëpp cey balu àq ñëpp di ca jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général kulu murit ñaanal Serigne Bassirou Mbackeem Serigne Abdoul Khadir mi yor kàddoom waaye tam ñaanal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke wala tam Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi yor commission culture ak communication bu màggal. mel na ni mbokk yi su ngeen gisee fii ñu nekk mel na ni départ nañ ci buntu kër Cheikhul Khadim bi. ci bis bu mag bi nga xamante ni tey ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñiw séentu suba ak jàmm incha allah dugg ci weeru safar ci dimanche ji karawaanu màggal Touba àndanteeg ak Serigne Modou Mbacke si moom Serigne Moustapha si mi nga xam ni moo ko jiite ak Serigne Khady Diakhaté Serigne Fallou Galassill ak presse bépp moo xam site internet yi moo xam rajo yi moo xam télévision yi jaar nañ ci ku tedd ki di Cheikh Mouhamadoul Bachir moom Serigne Abdou Khadir ci kër sëriñ Touba gi ci jumaa ji mu ñaanal mbokki taalibe yi ñaanal caravane bi a solo si nga xam ni caravane bi am na ko ñu daal dëgmal na ci état bu njëkk bi mbokk yi état bu njëkk bi fi lañ nekk nii su ngeen gisee fii sama ginnaaw di ngeen fi gis jumaa ju mag muy jumaay guy mbind waaye tam da ngeen fi gis barabu Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké juróom benn juróom-ñaareelu xalifa Cheikhul taxawaay bi am solo bi nga xam ni am na ko ci màggal gii di Touba caravane bii sosoo ci nekkam moom Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké résultat bu mag juddee ci amee ci moom Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké mu taxaw liggéey bu am solo bi bin ñëwee Serigne Cheikh Bara moom Serigne Abdou Lahad feggoog Serigne Khadim Mbacké moom Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké waaye itam feggoonte ak Serigne Cheikh Corom yor kàddu njabootug Cheikh Mahamadou ñoom ñëpp teeru na délégation bi tatagal leen dalal leen waaye itam naka noonu itam ñu ràññee kàddu am solo yi nga xamante ni Serigne Cheikh Bara Laat yëkkati na ko muy limal ñu historique gu dëkk bi nga xamante ni moo di guy mbind kañ la ko sëñ Bara sanc lan moo tax mu sanc ko sababu sanc gi ak itam solo si nga xam ni am na ko ak sëriñ Touba Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké taxawaay yi nga xam ni am na ko fii ci guy mbind am ko ci Daaru Xuddoos am ko itam ci njaboot ak sëñ Touba gépp am ko bu nekkee Seexul Xaddiim waaye itam Serigne Cheikh Thioro wax nañu historique gu dëkk bi di Touba juróom-ñaari guy yi nekkoon taxawaay war na ko cee leeral amal ko ci ak kañ la sëñ Bara sos dëkk bi nga xamante ni moo di guy mbind ci naka la ko sose ak itam ci diggale kan la ko sose waaye itam lu jiit loolu sëriñ falu Galass si la mu ubbi kaddu ya kon mbokk yi lii mooy li nga xamante ni namm nañ ko ànd ak yéen ci seen Istikhama TV diiru màggal gi yëpp waaye itam diiru caravane bi itam ñu àndante ko ak yéen suñ jógee fii war nañoo dem dëkk yi fasanti ko ñu ràññee ca suba déndey njaboot ak sëñ Modou Xabaan waaye itam ràññee ca tey Afe njaboot ak Serigne Afia ñoom itam incha allah ràññee ca itam ñu mën cee ràññee dëkk yu mel ni Touba Toul ràññee ca itam Ngunjaan ak yenn dëkk yu fasantikoo yoo xamante ne namm nañ koo def yëpp nag ngir liggéey Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasul fas yéene koo def kon mbokk yi lii daal bokk na ci li nga xam ne mën nañ ko indil lépp lu fi ruus ci wàllu image seen Istikhama TV ne leen ko indil moo xam fi ñu déparé tey ci dimanche ji ba ni koy tëjee incha allahu rabbi kon ca reefaan lañ koy tëje yëpp dinañ leen ko indil ba ci kanam ak yeneen i image ak yeneen i interview incha allahu rabbi góor ak jigéen mag kii ndaw ñëpp lañu woo màggal si leen màggaluk Tuubaa ga ñëpp ci weeru safar mooy bis ba bis ci yàlla ak yonen baak bamba teewe ko ren ku man ñëwal ba foo mën a yem ne bés ba ku cay góor-góorlu am ca lu duun bésum ngëneel la bu ànd ak jàmm bés la bu jaamoo ko sant ka berndeel gan ya ñam yu dagan auzu billahi min asheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahimi wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman rabbi bima yasrahul ashana qad fajaa bijahi afdali man lillahi qad lajaa hamdi li rabbin karimin la sharika lahu وصدري اليوم نورا ساتها ملاء محمد صلوات الله في أباد عليه فيه به كل به كلاء أدعو إله الذي حمد مواهبه لجملة الخلق ما يختار من براء ناجيته جل ومن وكرماني تكريم هاد وكن لي من لغى بريئا رحمن هب لي جميع الخلق رحمة من يغني عني سرار من قرآنه خراء هد أمة المصطفى عن كل مفسدات ولترحم الخلق يا من جادهم بداء يا مالك الملك يا من جل عن خواد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 ñoo ngi amaat mbégte ginnaaw bu ñu tàggoo ak eh, Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne yëkkati na ay kàddu léegi ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ñu jëm si fii nga xam ne kër gin jëm si mooy kër gañ bàyyi ko te kër gi moo di kër Cheikh Mahamadul Amin Cheikh Mahamadul Amin moom Serigne Touba Xaadimu Rasul mi nga xam ne xam nañ taxawaayam ci xam-xam xamit taxawaayam ci sañ-sañ xamit taxawaayam ci yoon wi nga xam ne moom la way juróom bu baax wa loon di ci liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam pas-pas bi nga xam ne suñ boroom jox na ko ci ñu jëm si fii nag fekk fi ki nga xam ne moo di Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh sidi al muxtaar mi nga xam ne taxawaayam bi mu taxaw ci lislaam taxaw ko ci yoonu murit ndam li bërki démb rek adduna àdduna wanewaat na ko muy engagement bi nga xam ne jëloon na ko te Cheikh Abdoul Ahad mooy wax ne engagement ku ko jël mooy loo xam ne boo ca duggee dootoo ca génn ba muy misaal engagement bi Serigne Touba jëloon ci diggam ak Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ci liggéeyal ko wax na wa sextu bi rabbil arsi sul juudi wal afi ak wa sextu ma al muxtaari billahi wahdahu engagement boobu nag Serigne Touba Cheikh Sidi al Muxtaar jëloon ko ci liggéeyal Serigne Touba ba naalaloon Serigne Touba jumaa juróy jii nga xam ne ku ne xam ne ne juróomi soroor la fa way juróom yu baax ya bàyyi woon waaye kenn nattabliwu ne turu yàlla wi yàlla wuyoo ak naan jaa ibu la muy juróom-ñaari soroor yi nga xam ne defal na ko Serigne Touba fii waaye naalaat lenn ndam mosunee toll ci lislaam te damay wax ne salimtu min al ahda i turran ma altija jumaa yi masalikul jinaan firndeel na ko bi sëriñ tubaa ne mucc naa ci noon yi waaye xafawtu an ahda i turran li wàcci man mooy jéggal naan ñëpp yaakaar naa ne jullik barki démb gi firndeelaat na loola loolu nag doonoon jëfi sëriñ Touba Cheikh Sidi El Mokhtar yàlla nañ ko yàlla fayal ñu jëm si fii nag ci këram gi nga xam ne ci la ñuy ubbee karawaanu màggaluk Touba ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa waaye ci kilifteefu Cheikh Mahamadoul Basir ibnu Cheikh Abdoul Khadir waaye nag ci jëwriñu Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma mi nga xam ne moo yor lépp jëm ci wàllu communication ñu ànd nag ak ki nga xam ne moom lañ fab karawaan bi teg ko ci loxoom di Serigne Modou mbakke si moom Serigne Moustapha si mu ànd ak Serigne Khady Jaxate moom Serigne Cheikh jakate tindoo di ak bokk yi nga xam ne ñoom la ko àndal bi ñu ñëwee fii nag fekk nañ fi Serigne Cheikh Abdoul Ahad mu gën koo miin ci Serigne Cheikh Baara moom Serigne Cheikh Abdoul Ahad moom Serigne Touba Cheikh Mahamadou Lamine waaye fekk fii itam sëriñ Cheikh Coro moom sëriñ Bachirou moom sëriñ Baara moom sëriñ Touba fekk fi sëriñ Xaadim moom Cheikh Sidi El Mokhtar moom sëriñ moom sëriñ Touba ñu gàttandu ne ci ndigalul seen kilifa di sëriñ Moustapha ñu taxaw ci barab bii nga xam ne lenn la ci mandargay sëriñ Touba Cheikh Sidi El ak i jëfam ñu fas yéenee bàyyee kàddu gi sëriñ Cheikh Baara mu leeral ñu barab bii ñu toog ak jëfi sëriñ Touba Cheikh Sidi El Mokhtar donte mu jëf xajut ci ay émission xajut ci ay jataay waaye nag fii lañuy ñuy ubbee karawaanu Grand Magal de Touba yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu bàyyee kàddu gi ak Serigne Cheikh Bara moom Serigne Abdou Lahad Isa bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu mbokki jullit yi yëpp rawatina mbokki murit yi di jiital ci nuyoo boobu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa ak taalibe yi di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo sëriñ Modou Mbacke si ak sëriñ Xaadi Jaxate ngir ñu jaaraleel ñu ko ci loxob Cheikh Abdou Lahad defaat ma waaye ñu jaara mu jaarale ko ci loxob Cheikh mu Basir ibnu sëriñ Abdou Khadir mi nga xam ne moom moo ko ubbi léegi ca këram te na mu ko ubbee ca këram moo mu ubbi ko fii ñooyam ba ngeen bañ ko ubbee ca këram daanaka mënoon na noo bañ a taxawaat di wax fii dara ndax mu ubbi ko ca këram di kër euh, sëriñ Abdou Khadir ak mu ubbi ko fii ci kër sëriñ Baara amuñu ak wuute kon ñuy jël nuyoo bu sel bu bàyyi koo ci njabootu sëñ Baara yëpp jaaree ci sëriñ Moustapha jaare ci sëriñ Cheikh Thioro jaare ci sëriñ Khadim mii toog mu yabal ñu fi ñu ñu di ko teg ci seen loxo ngeen ñu tegal ñu ko ci loxob ñoo ñu ma lim ba mu àgg ci loxo Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te yàlla may ko wér ndax ndax fii Cheikh Mouhamadou Mountakha du fi gan dafa toppe bañ di ko topp kenn du ko fekk mu toog ci photo yu Sëñ Tuubaa ñu ne ko looy def fii <laughs> déedéet dafa toppe bañ fekk ko fa di ko topp kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi ñoo ngi koy ñaanal yàlla mu wér eh, ñuy am mbégte bu baax tamit nag ci béréb bii nga xam ne dangeen fee ñëw te ñu bari tamit umpale ko ndax man nga ne eh, Sëriñ Baara mi mi tax ngeen jóg di tàmbalee si fii karawaan bi tey doom la ci Serigne Touba bokk ak Serigne Modou Moustapha ndey ak baay juróom wu jigéen di soxna Aminata Lo histoire ñëpp dégg ko yàlla may Serigne Bara moomu itam bu ma juumul menn moom képp ci doom ju góori Serigne Touba moo juddoo fii ci Touba juddoo fii sëñ bi tëdd ci jumaa ji loolu nekk beneen cër eh, yàlla dogal mu jóge ca Daaru Xuddoos tamit dikk sañ ci guy mbind gii guy mbind gi du ko sëriñ Baare sanc dañoo wax ni ku fi bay dee moom mu ñëw dëkk si fi fii dañoo dëkkoon wër ko kenn ñi mawu fee jaar moom mu ñëw dëkk si fi def ko ba mu mel nii tey yàlla dogal tamit fii ñu taxaw nii moo nekkoon néeg bi nga xam ne ci la dëkkoon Cheikh Cheikh Cheikh Sidi Muxtaar moo ma ko wax ci làmmiñam bi mu fi def jàkka ju jëkk ja wén gi fi newoon ñu daggale ko mu wax ni wén gi moo nekkoon ci buntu néeg sëñ Baara Cheikh Sidi Muxtaar def fi jàkka ñu ciy julli ba mu yàgg mu ni fii lu ëpp loolu war na fee nekk daa di fiy tàmbali jumaa ji loolu mooy fii nu taxaw nii tey loolu itam mooy historique gu guy mbind ci ci ci ci ci ni ñu ko mën a misaale yàlla dogal tamit guy nekkoon fe goo nga xam ni ñi ëpp xamuñu ko sax jàpp nañ ni gii la waaye ma nga woon fëlee ca wetu kër maawa dañ doon wax ni ku ci bind sa tur doo dem sawara muy muy lenn ci ci ci historique bi kon béréb bi béréb bërëb la boo nga xam ne eh, xëy na dana gàtt ndax ndax ndax ndax fi ngeen war a dem yëpp bu ku ne waxee lu baree bari duñ ko mën a dajale ba mu nekk dara waaye pour résumer ko rek bi Sëriñ Baara di jóge di jógee Daaru Xuddoos di sañc fii dañoo wax ne ku fi bay dee mu ñëw sanc dëkk fii ba ba melal ko nii mu mel ba mu fi bàyyi ko itam eh, sëriñ Moodu Baara wóotu ko mat ko sëkk di sëtu sëñ Tubaa bi mag ci sëti sëñ Tubaa yu góor yi sëñ Mourou Baara doon ki ci mag te xam nga sëñ Baara magul ci njabootu sëñ Touba waaye sëtu sëtu sëñ Touba bu góor bi mag ci sëti sëñ Touba sëñ Baara ku te magu ci loolu nekkaat beneen miracle ba nga xam ne yàlla mayoon na sëñ Mourou Baara itam amoon nu mu mel adduna sépp xam ko ñi ko fekkee xam ko muy lu wér ko gis xam ni kii buñ la nee moo wut sëñ Baara nga xam ne moo moo ko wut mu bàyyi la mu war a def lépp mu def ko moo xam ci guy mbind la moo xam ci mbàkk kajoor moo xam fu mu mën a doon def ko ci njaboot gi itam ndax sëriñ Baara bi mu fiy jóge kenn ku nekk xam na ni ñem fi bàyyi njaboot gu sew lañu waaye tëwul sëñ Muudu Baara taxaw ci taxawaay ba mu ca war a taxaw yëpp ndax kat sëñ Baara lu coow li bari bari fi mu ne ñëpp ko sutu fan 46 ans la am ci àdduna ñeent fukki at ak juróom benn la am ci àdduna te ba tey jii mi ngi mel ni mi ngi dund loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy ngërëmul yàlla loolu mooy njariñam mooy di mooy bàyyi koo fi te mel ne yaa ngi fi te ku yàlla gërëmul loolu munoo ko am ku amul tiit ci yàlla loolu munoo ko am bi fi sëñ euh, Modou Bara bàyyi ko sëñ Abdou Aziz wuutu ko moom itam jël dàllu tànku sëñ Modou baara fa fa fa fa fa waajuru sëñ Modou baara tegoon tànkam di sëñ baara ba mu def ba mu wuutu ko def li mu war a def lépp sëñ Abdou Aziz itam wuutu ko li mu war a def lépp mu def ko euh, ci ci ci njaboot gi. téye leen nam leen war nun ñi ñëpp lu ci bari fekk nañ ko mu doon ci suñ kanam ba mu fi bàyyi ko itam Cheikh Sidi Muxtaar jël ko ba mu ko jëlee moom itam fi mu ko indi nun ñi ñëpp itam teg nañ ci teg nañ ci teg nañ ci suñu bët ndax mën nañ fii ñu taxaw nii Cheikh Sidi Muxtaar bi mu toog 90 nekk sëñ Baara booba jàkka sax nekku fi penc la fii kër gii nekk nii tey ci suñ ginnaaw penc la woon waaye Cheikh Sidi Muxtaar wax ni sëñ baarakat war naa am kër goo xam ne ak lu mu yàgg-yàgg fii ba addunay tukki képp koo nga xam ne dangaa mag ci ak njabootam ku la soxla dem fekkelee ca kër googee daal di defar kër gii daal dina lim ci def lépp sëñ baaraa ko moom bi fi bàyyi ko yenoowuñ fi dara di ko génne lépp fi la ko ak njabootam bàyyi ndax dañoo xam ne sëñ bi ko doon defal sëñ baara ëpp leen yéene ci mën na leen a mag euh, jur leen waaye nag bëgg-bëgg bi mu am ci sëñ Baara lañ ci am njabootum ñëpp ci kanam ci ci ci turu ci ci ci njiitug sëñ Moustapha ñu wacc fi lépp dem ah yàlla dogal ci ci noonu itam ñuy dox di dox di dox ba yàlla dogal sëriñ Moustapha bi ñu nekk fi bi fi sëriñ Moustapha nekkee itam lépp loo nga xam ne kilifaam yooyu dañu ko tàmbali woon di ci sëñ di ci Cheikh Sidi Moukhtar ba mu yegg si fii mu dundal ko dund gu wér doxal ko dox gu wér téye ko téye gu wér itam yaatal njaboot gi yëpp. nangu jaaxaan tëdd ñëpp war ci koom du wax kenn ni lu tax nga nga nga toog fii wala lu tax nga def lii kon sii di Mokhtar nii mu ko defee fii itam na la ko defee ci Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor dafa jël kërug boppam gi nga xam ne ca la dëkkoon ba ko sëñ Baara di daggal fa mu ko daggal mu moom ko mu jël ko ni sëñ Touba ni ni sëñ Baara moo ko moom soo ko defar geneen kërug boppam moomale ko boppam waaye kërug boppam la jël jox ko sëñ Baara yëmut ci loolu ba mu demee ndakaaru itam mu jënd fa kër presque ci ci ay nangami téeméeri million daal di wax ni kër gi itam sëñ Baara ko moom kon moom digganteem ak sëñ Baara ah taw féex itam mu defar fa kër gu gu raw yooyu may wax wax ni sëñ Baara ko moom kon ña ko jiitu woon di sëñ Moodu Baara la ñu fi def ba dem sëñ Abdou si ñëw def ko ba dem moom itam bi mu ñëwee bay na ci aw laajtam jëf fi ba àdduna sépp gis li mu jëf wacc ko fi dem ndax naal wii jàkk ji fi toje man mii la ko doon eh, jubaa jii man mii la ko doon taxawloo jàkk ji ñu fi toje doyoon na sëkk waaye def ni sëñ baara yelloo na leneen lu raw lii ci béréb bi nga xam ne dafay nekkoon tañ di ko moomale suñu borom kon nañu ko defaraat ba méngoo ak bërëb yi yëpp moo waral ñu defaraat fii ba mu mel nii kon Cheikh Sidi Moukhtar lépp loo xam ne waroon na ko ci ab toogaayam jëf na ko dox na ko wax na ko yaatal na ko itam ba mu yaatu yeneen fànn yi daanaka du jar ñu dem nañ dem ci fànn guy mbind rek daanaka doy na yeneen fànn yi jur am na luñ ci xam sëñ Cheikh Thioro xëy na dana ci ñëw sëñ xaarim xay na dana ci ñëw waaye guy mbind gii daal li ko fi waroon lépp def na ko te ñëpp teg na ci seen bëtit béréb bii nu taxaw wane na ko ndax euh, tëdd gii mu ñëw tëdd fii du hasard du hasard ndax teg li ma wax nii sëñ taxaa kenn du ko fekk ci fauteuil sëñ Touba mu toog nga ne ko loo fi def ndax daa toppe ba toog fa ñu di ko topp waaye sëñ Sidi Muxtaar it kenn du ko fekk fii mu tëdd nga ne ko fii nga tëdd loo fi def ndax foo gestoo gis lu mu def walla nga dégg ko walla nga xam ko mbaa nga fekke kon mën naa wax ni lii mooy historique gu barab bii kon ñuy ñuy gërëm nag euh, sëriñ Basiru di jaarale ngërëm li ci sëñ Moodu Mbàkke mii ak euh, sëñ Xaadi ñu la ko Cheikh Abdou Gaynde Fatma ci tànn gi nga xam ne tànn nañ ko sëñ Baara ngir tàmbalee karawaan bi fii euh, di ko doxal ba mu dem ñoom ñii nga xam ne itam ñoom la fi yebal di sëñ Moodu ñi nga xam ne da koo jiite wax naa ko ko waxati ko ko euh, pas-pasam ak ku bëggam sëñ Touba ak ku góorgóorloo moog sëñ Xaadi bi ak ak ak nangu cee sonnam du caagi nag ñëpp a nangu lool. ndax lii kat nuru na nuru nalu yomb waaye du lu yomb nuru na lu yomb waaye du lu ndax jóg dem ci ay doomu soxna jóg dem ci ay nit ñoo nga xam ne yàlla teral na leen ba pare nga jóg dem ci ñoom di di leen yëgali di di saafoonteeg ñoom di waxanteeg ñoom loolu du lu yomb am na ñoo xam ne suñ ko defoon benn yoon ba ko ñaareel duñ ko def waaye ñoom ñii day mel ni bis bu nekk day mel ni bis bu nekk tey jii lañ ko gën a bëgg te itam jëmmi sëñ Tuubaa dong nag tax ñun ñu xam leen bu baax ndaxte ñoom ñëpp ay nit lañu ñoo xam ne ku ci nekk fa nga bàyyi ko bàyyi nga fa loo xam ne fees na sa biir waaye sëñ Touba mooy ki nga xam ne saa boo jàkkaarloog moom lu sa biir fees fees nga xiif loolu mooy moo moo moo ndax sëñ Touba ci bopp moo toll noonu. ndaxte euh, wolof yi dañuy léeb ni kenn mënut a téye géej ci ci ci ci say baaraam tubaab yi di wax ni on peut pas arrêter la mer avec ses bras. sëñ tubaa du kenn koo xam ne manes du kenn ku mën a téye mbirum sëñ tubaa ci genn fànn nag waxtu wu nekk mbirum sëñ tubaa day jóg jëm ca ko ndax yàlla bu la gërëmee dëgg dëgg ngërëmu ngërëmul yàlla jawam ji ku ci noyyi koo xam ne yor nga bakkan di noyyi boo noyee rek bëgg la suufam sii koo xam ne eh, yor nga bakkan boo doxee ci suuf si bëgg la asamaanam si ku mu tiim da ko bëgg géej gi ku lekk ci jën yi ciy bàyyi ko dana la bëgg loolu sunu borom moo ko defal sëñ Touba ndax Cheikh Sidi Moukhtar mi ginnaaw bu mu fi jógee am na turandoo boo nga xam ne catholique la du jullit te bu bu fi sëñ bi nekkoon mu tudd ko ko ñun nekkul sëñ bee tax waaye sëñ bi bàyyi koo na fi mu soog ko tudde woo ma téléphone wax ma ko bokkut ak nag turandoo yi nga xam ne karawaan bi jur na ko ndax am na ñoo nga xam ne euh, buñ demutoon foofa ba gis leen duñu xam dara ci sëñ bi wala ñuy xam ci jukkoom bu fa sëñ Moodu ñoom ñi demutoon bay jël doom di ko tudde sëñ kon nag muy ca ñii ak feneen ak feneen kon nag ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax di gërëm mbokki journaliste yi itam nga xam ne lépp lu mel nii su xewee ñu jóg taxaw ci taxawaay bu mat sëkk képp ko nga xam ne waroon nga cee teew munoo cee teew mu mel ni teewe nga ko ci àdduna si loolu tamit nekk liggéey nekk nekk liggéey bu baax nekk liggéey bu rafet en tout cas daal fi ma bëgg a jeexale mooy am na dafa am kàddu yu sëñ Modou Moustapha daan wax moom mi nga xam ne moo nekkoon kilifa ak sëñ Baara. dégg naa daan wax ni diwoo ma jur doyuma nangam laa sant doyuma maay diw doyuma njub moo ma doy te saa bu ñi ñi jub saa bu ñu ñi dëng saa bu ñee ñi jub réew mi dana dox asalaamaaleykum wa rahmatullah